mbokk yi ngeen jëf seen ak télévision Futur Média ñu am mbégte ànd ak yéen ci xibaaru marax yi dañ koy tënk tey ndax xam ngeen xew-xew bi Coupe d'Afrique des Nations football bi la Sénégal di xam euh, kan la nar a dajeel diggante Égypte ak Cameroun ñi ngi ci jamono jii euh, ba ba ñi àddu ni kenn dugalagul dara ci ñaari équipe yooyu ci kanam kon dina leer diggante euh, Égypte ak Sénégal kan la ci diggante Égypte ak Cameroun kan la ci Sénégal di am lu mooy loolu ci li gën a fës ci xibaar yi yi dana ci bokkit euh, ndaje gu matale diggante euh, syndicat yeeg gouvernement bi waxtaanee grève u jàngalekat yi dinañ ci dikk ci biir xibaar yi ñuy tàmbalee kon euh, ndax dañ koy tënk ca ndar foofu yit grève ba law na ba yegg fa ba tax foofu wayjur yi nekk ci njàq rek société civile bi it ñi ngi xalaat naka la ñuy def ba saafara jafe-jafe yi Ousseynou Diop ci leeral ndar géej lu toll ci weer a ngi nii daanaka élèves yi jàngiwunu la ko waral bokk na ci grève yi nga xamante ni seeni professeurs yi tàmbali nañ ko ñoom ñoo ko eggalee ci diwaan ndar géej nag parents d'élèves yi di naqarlu lu nu mel. ak lu leen mënti metti am na lu leen metti bu leen mëneen woo wax ak ñoom ba xam lu leen daal parce que man samay doom ñu ngi jàng te mënuñoo jàng ndax saa yu ñu demee dañ leen di génne. wax ak ñoom moo tane woon. Mame Koumbel état bi dafa war a def ay jéego jafe-jafe bii ñu daal koy saafara seen na mu gën a gaaw mu ni budul loolu lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa eggee beneen i jafe-jafe mën na ci juddu. mais grève bi depuis lors mi ngi continuer te mi ngi persister tamit gis naa ne état bi su fekkente ne ñoom problème bi c'est à niveau ñu jug si ñu jàppale ni ñu jàppale ni ñun parents d'élèves yi jàppale aussi élèves yi ñu mën a continuer seen jàng def seen ay composition ñi war a examen tamit préparer seen examen te te te te bëgg nañu ñun bu ñu amoon solution bi ñun ñoo si jugal suñu bopp mais comme ci état la la la basé wu ñoom nañu dimbale xale yi continuer waa seen jàng. Zahir Fall moom ci forum civil la bokk ci gis-gisam état bi war na ubbi négociation yoo xamante ni day leer ndaxte jamono jile njàngam mi xaw nag tagatem bi. di wàcc di ñëwaat loolu du ñu neex donc di ñaan enseignants yi di ñaan aussi état du Sénégal mu jéem a trouver définitivement solution sur la crise scolaire parce que at bu ne ni lay mel donc je pense que loolu du image bu baax ci école sénégalaise. ci diwaan moom parents d'élèves yi ñi bokk ci wàllu société civile bi ñu ciy bari àddunañ ci jafe-jafe yi njàng mi dund nee nañu nag jamono ji la ñuy gis ci wàllu njàng mi dalul seeni xel. Kumba Njang moom moo jiite amicale bi jaboote chef d'établissement yi secondaire bu Sénégal ACS la ñuy wuyoo euh, seen secretaire général kon Kumba Njang gis ni lépp ci peyoor yi la euh, nguur gi moo ci mën indi saafara leeral na ci far Farba Marcel Farba Maroun Jaafara ba ci caméra bi nguuru Sénégal war na fexe ba indi saafara ngir crise buy dal ci enseignement public bu Sénégal daal di dàkk loolu di kàddu waa amicale des chefs d'établissement du secondaire du Sénégal ACES e miy fàttali ne bu ñu buggee crise bi jeex état bi dafa war a xoolaat payoor gi muy jagleel jàngalekat yi. da ngay jàngandoo ak euh, sa benn nattaangoo yéen a bokk koñ yéen a bokk euh, euh, sa mbokk la et cetera ngeen jàngandoo amandoo même diplôme yi defandoo même formation yi génn fonction li mu xam. Euh, statut la hiérarchie la ngeen bokk même statut bokk même hiérarchie mais nga gis ne lañ koy fay moom mën na la fay ñaar ba ñetti yoon xam nga kooku euh, àndul ak yamale euh, te njaboot ku ko yor danga ko da nga leen di yemale. ba léegi ci wàllu xeex bu syndicat enseignants yi di doxal ci réew mi ñuy jiite établissement yi ñoom gis ci tamit seen bopp bu baax a baax. ñun dañuy gérer administration dañuy gérer ay crédit mais également dañuy gérer ay nit gestion des ressources humaines. te jànguñu ko fenn nest pas donc moo tax ñu demander ñu améliorer l'environnement de travail mais également ñu ñu améliorer le traitement aussi le traitement salarial boo xoolee indemnité yi mais du dara hmm? euh, environnement de travail bi par exemple euh, exemple bi ma si joxee mooy euh, école bu toll ne école bi nga xamante ne ni lu ëpp ñetti junni élèves ñu ngi fi élèves yi tout temps ñu ngi feebar nga war leen évacuer yow oto amul ci école bi sa oto ngay jël wala nga jël sa oto agent yi pour nga nga évacuer leen loolu problème la te dañu war a dépasser foofu. ñuy fàttali ne amicale des chefs d' établissement du secondaire du Sénégal mi di ACES e benn organe la buy bàyyi xel te di alerter lépp lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale ci réewu Sénégal. Isaac euh, Koumba Niang moom mooy proviseur lycée sergent Malamine Camara ñu doon ko ñu dippee woon ko Limodak lycée moderne bu Dakar euh, ci grève bi dañu siiwaloon ni euh, dafa am xale bu ñàkk bakkanam foofu ca liise bi mu jiite weddina tuuma yooyu ñu teewlu ay kàddoom élèves yi ñu ci mbedd mi ñu gis benn presse commencé Euh, waaw li ma dakk euh, va très ah rey nañ fa sax benn élève élèves yi dañu doon manifester di demander euh, que grève bi jeex ñu police ñëw ah sànni leen ay grenade ba am na sax kenn ku ñu ci rey te loolu yëpp amul man bi may déglu seetaan télé boobu waa ji mi ngi naan maa ko fekkee lii fekke naa ko c'est c'est alors que dara amu ci. tey nag ñun tamit du ñu toog rek nag di seetaan ñuy yëkkati lépp lu ñu lu leen neex rek yëkkati ko teg ko ci kaw li ma dakk dañu porter plainte man porté naa plainte au niveau de la cybercriminalité donc la plainte suit son cours et lépp lu ci lu ci lu ci lu ci wàcc rek ñu xam ne loolu la. ni ngeen ko déggee muy parents d'élèves société civile ni ki it eh, ñiy jàngale sàkku ñu dellu ci classe yi te nguur gi indi ci saafara ndaje mu matale dox na diggante syndicat yeeg gouvernement tey ci suba lañ ko tàmbali lépp ngir eh, saafara jafe-jafe yi Samba Sy ministre du travail du dialogue social suñu école dafa yëngatu fan yi yëpp euh, ñaari mbir rek la ñu tippoo ci waxtaan wi mooy loo xam ne mu ngi jëm ci peyoor yi ñi nga xam ne ñoo jàngale ak li jëm ci li ñuy naan euh, administration scolaire ñi nga xam ne ñoo jiite euh, bërëbu jàngukaay yi ba tax na gouvernement bi dina gën dajewaat ak parti syndical yi gën a yéex fii ñaari semaine ñu gën a fësal maanaam laaj yi ñu gën a fësal tontu yi ñëpp jàppandoo na ñu ñëpp ne école encore une fois daf ñu amal solo nag dafa am loo xam ne moom la laaj am na ay sacrifice yoo xam ne tàmbali nañ ko def yàgg na boobu ba léegi waaye mën nañ yokk jéego gouvernement bi def ko syndicat yi def ko ñu daje. li am solo mooy encore une fois li ñuy def ba njàng mi ak njàngale bi ñu continuer di ko joxe ci anam yi nga xam ne euh, anam yu baax la. ba léegi ci wàllu woowu jàppale na Saourou seen bokk ci syndicaliste yi xelam dalul ndax nee na payoor yi moom ba léegi jàpp nañ ni mooy jafe-jafe bi gën a mag te nguur gi euh, waxu ci lu leer fi fukki fan ak juróom fi leeg ñaari ay bés kon dinañ dellu si waat sumb yeneen i waxtaan ñoom it euh, syndicaliste yi ne dañuy euh, dem ci seen i ndaw ñu leen yónni woon waxtaan ak ñoom la tukkee ci euh, ndaje mu matale bi ñu am ak gouvernement bi xam ndax dañuy yëkkati mot d'ordre beeg wala dañuy feddali dañuy dem ba wurasoo gi foofu jafe-jafe ca waa kër docteur euh, centre hospitalier régional jamono ji grève ba fa am ndax euh, octobre ba léegi ay jafe-jafe moo dox diggante njaatige ba ak ñi fay liggéeyee ba tax sax ñi taxawal syndicat foofu ñu ko jiite syndicat bi dañ koy bunn yóbbu ko ca kanamu yoon agent de santé yeeg infirmier yi banque seen yoxoo ngir solidarité ak moom Ali Bandel ñoo ci leeral. tension bi jéggi na dayoo ci centre hospitalier régional bu Ourossogui crise maanaam xiroo ngaayo bi nga xam ni octobre ba léegi mu ngi am tax na kon ba syndicaliste yi daal di yokk volume bu baax a baax ndaxte ñoom ñi lank kandaare yokkute gi ñu nemeeku ci prime bi ñu jagleel seen directeur leneen def leen ci fekk si ndax seen njiit di secrétaire général bi dañ ko yóbbu ci yoon ba déglu nañ ko ca gendarmerie laata kon ñu koy jëlee ci poste ba mu newoon askan wi la ñuy jël ñu nekk suñu seede octobre ba léegi xeex bi octobre la commencé. ndax ci ci biir intimidation dem na ba maanaam ki nga xam ne moo nekkoon sësi bi di secretaire général bu union régionale bi d'ailleurs daf ko jëlee sax ci postam maay yokk warul mën a nekk rek féete benn boor moom kese moom la ñu yokkal yokkaluñu personnel bi yokkaluñu kenn mu nekk di buur di bummi te ginnaaw loolu mu teg ci nag di wane wane ne faalewut kenn ndax dees ñëw na ba fii joxe ay instruction faalewut loolu yeneen i kilifa xëy na ñu ngi wax ak moom faalewut loolu waaye li am mooy ne ñun syndicat lañ te dañuy des nekk di ay syndicaliste dañuy nekk di syndicaliste li ñu xeex danañ ko xeex ba fu mu war a yem. ngir bokk ca sitting ba jàppale seen ñooñ te l'hôpital bu Ourossogui daanaka système sanitaire diwaanu Batam bi yëpp moo nërmeelu la ko firndeel moo di mbooleem infirmier chef de bawoo nañu ci mbooleem district sanitaire région bi maanaam région de Matam yëpp mën nañoo wax ne taxaw na ci wàllu wér-gu-yaram te nag dafa commencé tey te nag lépp lu laaj bépp stratégie boo xam ne ni ëllëg war nañ ko def rek dinañ ko taxawal gannaaw sitting bu mag bi ñoo amal ci óolu hôpital bu Ourossogui fas yéene nañu marché ci mbeddu Matam yi ci ndorteelu ay bés bi ñu ma la jëm nañoo jëm ngir amee tontu directeur bi ci boppam waaye daf ñu xamal ni nekkul ca bureau dafa dafay bokk ca seminaire bi nga xamante ni ci ab message SMS bi mu ñu yónnee mu ngi ñuy xamal mu ngi jëm ci wàllu marché public président Macky Sall siiwal na xibaar bi législative élection yi falaat euh, ndaw pencum réew mi député yi dañ ko amal farwen fanweeri fan ak benn ci weeru juillet atum 2022 bi 31 juillet 2022 ki euh, xam-xamam màcc ci wàllu élection njëg di wuyoo njaga si la gis ni faaw ñu gaaw am na ponk yoo xam ni foog ñu lijjanti ko lu mel ni parrainage ak euh, costion bi lu ko moy mooy danañu tardé ci app yi nga xam ni moom la yoon tënk Alassane Ba dénk kàddu yeeg Pape Sangone Mbaye loi bi moo ni élection dimanche lay am bisub dimanche donc bi ma calculer loolu ma ni kon élection yi mënul am euh, génn ci diggantewu lu muy lu mu teel teel euh, maanaam 17 juillet lu mu yéex yéex 21 août. évidemment président kon date bi mu jël conforme ak code électoral bi surtout que aussi mënoon na dem ba ut ba ut mais ñëpp xam nañ ni août dafay nekk période boo xam ne période nawet dëgg la ñuy la ñuy la ñuy nekk je pense que euh, dafa confirmer rek que ñaari euh, élection législative yi fu mujj bu 2012 ak bu 2017 yëpp fin juillet lañ ko def donc je pense que aujourd'hui euh, disposition yi nga xam ne lañ ko war a jël parce que li ci des matatul juróom benn weer te alors que war nañu d'abord li ci gën a jàmp parce que loi bi moo ni bu desee juróomi weer war nañu maanaam ministre bi jël arrêté ginnaaw bi mu bi mu dégloo maanaam acteurs yi partis yi coalition yi pour fixer maanaam xaalis bi nga xam ne moom ngay déposer caution bu loolu weesoo war na am loi bi moo ni bu ñuy def élection dafa war a am révision exceptionnelle a ñu ubbi mbindu mi mais dafa am ponk aussi bu am solo mooy ñi bëgg a dem élection dañu war a déposer seen candidature ba pare yi boo koy déposer dafay fekk maanaam nga nga am ay parrain maanaam ñu la pare parrainé te kon loolu war nga lu mu lu mu yéex yéex maanaam war ngaa mën a may ak acteurs yi kon ñu am ñaar ba ñetti weer Euh, doog a dugg ci candidat yi kon boo ko gisee mooy kon ci weer wi ñu nekk ni war nañu commencer euh, justement donc parrainage parrainage boobu. yegg si nañ ci ponk les bonnes feuilles de la rédaction ni ñu koy defee alxames euh, bu nekk téere Mortala Gaye lañ leen di miineel bi yoon Idrissa sekk l'ombre du passé Ibou Diouf moo ko framfàcce fàccee journaliste bii di Mortala Gaye ci bile téere mu taxaw def njàngat ci jaar jaaru politique kii di a Seck ak dundinam. journaliste bii di Mor Talla Gaye xaatim bi téere ngir ñëwaat ci li gën a fës ci taxawaayu Idrissa Seck ci langue politique. yàlla defal nañu sutura balaa ata ci muy célébrer ban ko nomeeg léegi génne nañu livre bi te loolu je pense lu am solo la ci man parce que dama jàppoon ni benn défi la woon te défi boobu yàlla may nañu suturaal nañu ba ñu euh, relever ko. journaliste bii ne coow li bëri na lool bi téere bi génnee rawatina ci xarala yu yees yi loolu bokk na ci li ko gën a ñaax mu def bi li liggéey. parce que dama jàpp ni euh, coupé eh, bi nekkoon ci ba ñu tabbee Idriss Seck Macky Sall ba mu ko tabbee mu nekk euh, président conseil économique social et environnemental am na benn xupp amoon na ay xaste amoon na ay saaga yoo xam ni nemmeeku woon nañ ko ci. Euh, réseau sociaux yi muy Facebook ak Twitter ak lu ne. nombre di passé wala téere bi nga xamante ne journaliste bi di Mor Talla Gaye bind na ko mu mel ni ku gisoon defeetu Idrissa Seck ak ki àndandoom ci élection locale yi ñu génn. élection locale yi dañ ko doon yuuxu ca bureau ba mu nekkoon di voté ñu gañe ko ci santram gañe ko ci kamu ngemboon ñu gañe ko loolu nag firnde la ci moom la mu defoon 2007 dafa mel ni tiré wu ci leçon duggoon na ah, am 2009 la mu perdroon tey mu duggaat am la mu perdroon xëy na peut-être lii lay firndeel rek li ñu titre livre bi l'ombre du passé. jaar jaaru Idrissa Seck ci langu politique bindikat bi ne du woon lu jafe. ndaxte moom ab kilifa bu ñu ràññee la. yàlla defal la sutura nga gaañ jàngee Saint Gabriel am fa ay notes yu baax réussir say études ba tey nga nekk premier ministre ba tey nga nekk euh, ministre d'état directeur de cabinet du président de la république. bi mu nekkee jafe-jafe yi mu ci jot am également. Euh, chantier Thiès yi parce que mënoo wax Idrissa Seck te waxoo chantier Thiès euh, jafe-jafe bi également bi ñu amoon pour mën a wax ak ñooñu Idrissa Seck yi parce que ñoom ñëpp dafa mel ni dal leen na wax bu leen wax ak moom. Mor Talla Gueye di journaliste bu ñu ràññee itam ci wàllu portrait livre bi may na ko mu taxaw ci histoire wu Idrissa Seck ak lépp lu mu jot a def ci langue politique fii ci réew mi. niñ leen ko waxee jamono ji ñuy àddoo ñi ngi joué diggante euh, Cameroun ak Égypte ngir euh, ñu xam kan ci Sénégal euh, ñooñu lay taseel jamono ji nag fële ca Cameroun lu toll ci juróom-ñetti fukki journaliste ñi ngi fa teewal fa presse bu Sénégal askanu Sénégal ngir ñu xam lépp li fa xew mu mel ni bokk na ci délégation yi gën a mag yi presse Sénégal mës a déplacé ci xew-xew gu ni mel président ANPS Abdoulaye Thiam lay wuyoo ren ji nag euh, yóbbu nañu quatre-vingt-quatre journalistes sénégalais euh, loolu nag dañu naan guleet c'est la première fois c'est le contingent bu ëpp solo euh, bu weesoo Cameroun amul kenn ku fi déplacé autant de journalistes muy rajo télé presse écrite site internet ak lépp ñoom ñëpp ñu ngi fii yàlla sutural ñu aussi ñu am benn état bu mun a def distinguo entre ñun sunu liggéey bi ñu war a def Euh, qui peut-être ont rôle de vigie d'alerte d'avant-garde euh, suñu waree critiquer ñu critiquer suñu waree informer à juste valeur ñu def ko mais n'empêche état bi terewuñu aussi bu ñuy dem compétition ñu jox ñu benn subvention fédération aussi les relations peuvent être heurtées c'est normal c'est comme entre le journaliste et la euh, c'est comme la politique et la presse c'est normal que les relations soient heurtées mais il faut trouver un juste équilibre waxoon depuis nekk bunker mënoo ci dugg parce que yéen boo leen fi ñëwee tey c'est parce que votre organe a trouvé les moyens nécessaires de vous amener ici ñun ak ñeneen ak ñeneen yëpp ci yem mais quand équipe nationale aussi mënul nekk marché ku mu neex dugg ku mu neex génn dafa am loo xam ne ñun yël bëgg nañ ko bëgg nañ jot information pour jottali ko parce que nous ne sommes pas des supporters mais Aliou Cissé aussi soxla na quiétude pour mun a composer équipe am normalement loin des mun ko ko comprendre ñu mun ko ko nangul donc moo taxoon nag ma nekk mais du nekk aussi marché kooku tombé nañ si d' accord yàlla sutural nañu ñun ñëpp ñu ngi nekk nii ji ensemble trouver suñu benn hôtel 85 journalistes dont 19 femmes je crois que c' est extrêmement important mais sant yàlla rek parce que Aliou bëgg loolu la ñu bëgg mooy au soir du février incha allahu rabbi ñu yéeg si podium bu gën a mag bi ñu remporter suñu trophée président de la république yónnee fii environ sept wala huit avions ñun ñëpp ñu ànd si le soir même ñu ñibbi Ndakaaru féete ko. <laughs> ci kàddu Abdoulaye Thiam yooyu la ñuy ndar keppee xibaar yi di leen gërëm di leen sant ba beneen yoon incha allah.